xasida yi rek lan mën a xam sëriñ ci xasida ñu wax ma waay bu ci la yaaman ajaaba nekk mhm. ndeysaan xasida gi wax ne sëriñ bi ko tàmbali rek mu àgg mhm. ndeysaan waaw mawaahibu waaw bismillaahi mhm. yéen mooluwaay. maanaam foofu la xasida ga yam ah, fa lay wax. la ci des lépp. sarxun lil xasidati. est-ce que. min awwaliha ila axiriha. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. introduction rek. rek mu jax. bismil ilaahi ñu ne waaw. Mm, mu ne yéen mooluwaay cey su ma ko doon firil su ma ko dun léebal sëñ Mbàkke di nga ko mm-hmm. misaal. Mm-hmm. dañu naan dafa am ñeenti 4 x yu gaare ci buntu kër gi. Mm-hmm. ñeenti 4 x yu gaare léegi occasion lañ koy jaay. ñeenti 4x4 yëpp. boo amee million am leen. waaye nag comme il est 11h34. su midi du ko jarati. day gën a yokk. su ma ko su midi. waaw li seen morom lay jar lay jar. nga daan ah. ay Mbàkke fooy jëlee 4 waaw. rek suñu Abdou Mbàkke daal ne asalaamaaleykum Mbàkke ngi fi. wallaay. Mbacke Balla nga ne waaw mu ne 5 millions yi day mhm. yow laa ko doon indil waaw matal na jaar na waaw damaa dama koo xalaat rek yëf yi mat très bien sëy waaw loolu loolu kon moom la ñuy déggee ci bismillaahi yan moo lu jeex na bismillaahi yi mooy yaa ngi xalaat ne fan lay jëlee 4 millions yi yi ma jënd oto bi yan moo lu mooy suñu Abdou Mbacke agsi na jox la 5 millions léegi nag bilaa ma naay wala tiyaay ab yi taa maara laa nangam nag wallaay ba mu begg yëpp foofu yëpp yëpp ndeysaan ndeysaan léegi nag ci biir nag uh-huh. mu ne yaamaan ajaaba mm-hmm. tey man istajaaba mm-hmm. habil ijaaba fi san lii rek oh, oh. daa mel ne ak ñaan parce que habil fii sanni daay waaw yaa man ajaaba yow mi nga xam ne yaay wuyu man képp koo xam istijaaba nee na la wuyu ma mm-hmm. man mi kon habil ijaaba fi sa ni daay lu ko jiitu nag def na ko jawit zaka yi waaw jawit zaka yi bëgguma laa ñaane li la ni ma li la gaa yi daan ñaane waaw dama la bëgg ñaan lu la kenn musta ñaan dëgg la parce que ñun nag oustaz léeg-léeg ñu ñaan lu amul njariñ waaw waaw loo xam ne temps biñ ciy perte vraiment jërul woon ñaan loolooy jawit zaka yi nag moom nag daa bëgg a ñaan lu am njariñ <laughs> moo tax sëriñ bi ñaan na de oustaz déet ba mu ñaane ba mu ne ko waaw moo jur illa yaqaadalaw maalam yakuni walaay kon abadan li mumkin wallaay ñaan gaa nangu lay xaadalaaw maa lam yakun waaw waaw wala yakun abadan abadan li mum ki ni ñaan ngaa tax xam nga kon oustaz dama ciy déggee loo xam ne àddina luy jeex la mhm. koy ñaan luy jeex waaw day amoo xel ñaankat bi dëgg-dëgg mhm. Mhm. maanaam fii bu ma la ko doon firil dama naan da koy wax ne may ma ndab lu ma def ñaan gi may ma mbooloo mu lekk ñaan gi may ma dëkk bu ma teg leket gi kël kël bi këll bi bi ñuy def ñaan gi waaw loolu yëpp mu ngi ci biir jaww ji zakaay. est-ce que est-ce que est-ce que. <laughs> waaw est-ce que. waaw waaw ñaan gu mat a ngi noonu. kenn mësu ko gis mata matale